jere ngeen jëf mbokk yi delu mbégte dellu siwaat leen dégtal li nga xam ne moo di chronique wax nañ nag euh, ci chronique bi li ñu fas def moo di comme xel day fattu te nag ñu jàpp ne ñi nga xam ne dañuy jiite fi ñu teg ñoom seen yorinu sénégal mooy dinaa def lu ma neex ndaxte mbam du weesu weer fii ci sénégal Senegal dal bu lëmbambee tu rek bala ndax nak bëri na fi lol lu fi jaar muy jaadu ñukoy fatali fàttali sénégalais yi ndaxte ñom dañuy wax rek bay leen ñu wax bu ñu waxee ba rigal ñu nit ñu wax mbamba gi jog mu jeex waye may bëgg sénégalais yi di bayyi xel yi fi jaar yépp motax li nga ne sen chronique dañ koy jagleel ay scandale yoo xam ne bëri na lool kenn mënu koo lim waaye ñu ciy seppi benn par benn di leen ko fàttali tey dañuy dellu siwaat ci mbiru arcelor mital ngir rek wone ñoom seen biir seeni kàddu ni muy waroo duma def lu dul juux ñoom seen biir jukki ci kàddu ay kilifa ma bëgg ngeen bàyyi ci nopp bu baax mbiru ArcelorMittal ba muy tàmbali kii nga xam ne moo di Aly Ngouille Ndiaye moo ministre des mines kon moom la soxaloon mu indi ci ay leeral ñu déglu ay kàddoom yu mu rotaloon Dakar Matin Arcelor qui avait promis 2,2 milliards de dollars d'investissement soit 1100 milliards n'ayant pas respecté ses engagements le Sénégal a attiré la société devant la cour arbitrale, la même cour qui nous a condamnés, pour demander la dénonciation des accords et obtenir la libération des titres afin de pouvoir discuter avec d'autres investisseurs potentiels et d'autre part demander réparation du préjudice suivi. En raison de la complexité du dossier et de la longueur de la procédure, le Sénégal a sollicité et obtenu du tribunal la tenue d'une audience pour une sentence partielle destiné à dénoncer les accords et libérer les titres, la demande de réparation pouvant être examinée plus tard. Tel est l'état du dossier au moment où Maître Wad quittait le pouvoir. Il est donc à noter qu'à cette date, aucune décision n'avait été prise par le tribunal, aussi bien sur la demande de sentence partielle, encore moins sur la demande de réparation. Dakar Matin. le ministre Alingou day melni ci sen ay ñom 2012 seen kase contrat bi ak ArcelorMittal ci lañ top ArcelorMittal Les dal à partir de 2012 la xewé Mon mo wax lu ñu mel ñu Andando déglu ministre de l'économie et des finances bawone Amadou Ba la wax. Dakar Matin. En 2011, une sentence, première sentence arbitrale tombe, c'est une sentence partielle, donc qui effectivement met les torts sur ArcelorMittal, donc euh, qui permet au gouvernement de résilier le contrat et, euh, d'être peut-être dans une procédure de pouvoir euh, permettre à une autre entité d'exploiter le minerai et le, tribunal devait revenir dans une deuxième étape pour fixer le préjudice financier. Dakar Matin. dégg Amadouba, Amadou Ba 2011 le tribunal prononçait première sentence Manam nangul Sénégal lim doon sàkku ci Mittal. kon kàddu yi waroon kon 2011 temps wu Ablaye Wade la ndax président Macky Sall mi ngi fallu 2012 léegi nag ñu fàttali ci atub 2007 Sénégal dafa joxoon benn sidérurgiste mondial bu mag bu ñuy wax ArcelorMittal benn concession pour ñu exploiter li nga xam ne minerai de fer bu Falémé ñu toog ab diir lépp loo xam ne ArcelorMittal dige woon na ko day obligation respecté wu ci dara laata loolu Kumba Ressources moo fi nekkoon ñu nangu ko ku mbaru susu yobbu won état sénégal état sénégal waron fay ñu jox ko arcelor mital ci digënté bi arcelor mital ci bopam ne wax lu bare bare lim ko ne dina ko def ñu dem di xol di xol defu ci lenn Senegal, sénégal ci ayuk met wa wadd porter plainte arcelor mital pour wat li nga xamné modi concession pour exploitation minerai de fer bu falemé ba paré nak wolbeutiku ne préjudice bi nga xamné subir na Manam maanaam li ñu defuñu dara ñu fay ko ay ndampay nguruk Sénégal ñu dox deug nguurug Sénégal contrat bi ñu résilier ko waroon fay nak ay dommage ak intérêt ba ñu nekkee né dañuy fay dommage ak intérêt yoo xam ne war nañ ko jox muy alal ju bari nguurug Sénégal ndax tribunal bu Paris moo ko àtte woon boobu boobule ba mu ko àttee war a jox ndàmpaay président Macky Sall ba mu faloo au lieu mu bàyyi li nga xam ne mooy processus d'arbitrage bi mu ne day fas yéene waxtaan ak ArcelorMittal ba juboo ci ay kàddu foofu nag la scandale bi tàmbale vrai scandale demoon na ci ba ñun sax waxatuñ ci woon yéen a ngi fàttaliku Maître Abdoulaye Wade moo ko njëkk a yëkkati dem na ci ba bitim réew yéen bu mel let di continent sax bindoon na ci ci numéroom 696 ni li ñu gis ci dossier ArcelorMittal bi ak digganteem ak Sénégal ak nu ko nguurug Macky Sall doxalee escroquerie am na ci détournement deniers publics am na ci enrichissement illicite am na ci lieu de lettre du continent moo ko ci numéro 696 la. tribunal arbitral de Paris dañoo toog bëgg a mbir luy jox ndàmpaay Sénégal comme daan Je ArcelorMittal ba noppi moom kenn ku jigéen ku leen téléphone a bëccëg di leen ne agent judiciaire de l'État pour demander ñu clôturer dossier ku jigéen ku doon woo tribunal loolu la doon wax ca booba xam nga ku nekkoon agent judiciaire de l'État Aïssa Gassama Tall mbokk la ci président Macky ndax turandoom moo ko jur moom lañ njëkkoon nommé agent judiciaire de l'État tribunal bi bañ koy kar-karee ak téléphone tribunal bi ci boppam na xamul nit kooku li muy exiger su bëggee ñu clôturer li nga xam ne moo di dossier bi na agent judiciaire de l'état bind lettre djebal len mu nek mbir mu doy war ci booba dafa amone lu xew gis nga soxna sos wax Aïssa Gassama la def ba mu dossier bu dafa lank bagn niko bi du bind lettre diko tribunal ndax état bu Sénégal da ci fas yéene ñàkk xaalis bu bëri ci ñu ko nar a doxalee te jubul jaarul ci yoon mu lànk bañ am sax yu ci xew mais ndaw su jub la Sénégal dem transiger maanaam waxtaan ba juboo yow nga nangu ne ArcelorMittal moo tooñ tribunal na ko yow yaa tooñ da nga war a fay ay dommages lu ci gën a garaaw ñu ne soixante quinze milliards la Sénégal jot ci ndàmpaay te soixante quinze milliards yooyu sax yegsiwul 72,2 milliards lañ wax ne moo yegg si li ci gënaat garaaw mooy dafa am avocat boo xam ne daanaka avocat wu président Macky Sall François Maire le tudd maître François Maire avocat personnel président Macky Sall moo doon tulleeg màlle ci dossier bi maanaam moo ko doon toppatoo ba agence judiciaire de l'État état bañee ministre de l'économie des finances moo jël dossier bi en main mais avocat bi moo piloté lépp ba ñuy wax sax ne xaalis bi nga xam ne nguur Sénégal moo ko waroon jot ci ay kontam daanaka lañ ko viré après nag xam naa mu jël ci li ci wàllam mu ne ko mbir mu garaaw ndax nag am na cabinet américain bu tudd Gustavon Associates bu évaluer woon perte bi ba ñu ne Sénégal war na ci laal xaalis lu toll ci deux mille trois milliards la ArcelorMittal waroon a joxe xanaa bu ñu nekkoon di làmbaatu di làmbaatu waroon nañ mën a ëpp lool li ñu jot mooy soixante-quinze milliards te wóorul na loolu sax la ñu jot wax nañ ay laaj mën a jib yu bari lool ay laaj yu bari lool mën a am ci mbir mi nan lañu mën a jógee ko ci xayma ci deux mille cent milliards ba soixante-quinze milliards ba tey jii jot na yàlla tey jii waxuñu ne avocat bi nga xam ne moo doon dugg ko génn di nasa ko nocci jege lool président Macky Sall nekk avocat bi maître François mais moom ci boppam ak yeneen avocat yi lan lañ jot ci honoraire ak it lu tax agent judiciaire de l'État ca booba ñu seppi ko ci négociation yi yàggu fa sax ndax jubam ginnaaw mbir bi ba mu jàllee ci tuuti rek lañ ko jëlee agence judiciaire de l'état yóbbu fa antoine jom yàggu fa sax loolu nekk na scandale ba tey jii kenn mënu ko leeralal sénégalais yi xew na fii ci réewum sénégal ñii nag lañ ko fas yéenee jàpp génn benn par benn ay scandale yoo leen fàtte woon ñu fàttali leen ko di leen sant di leen gërëm di leen dig alarba incha allah ci beneen scandale boo xam ne dañ ko waxtaanee waaye nag laata loolu di leen wëy ak seen live seen chaîne YouTube dakar matin point com incha allah. Dakar matin.